Euh, denrée de première nécessité yi yëg jóg muy front social bi euh, ndax yëg nga ko ak nan nga ko yëgee ak nan nga koy dundee ndax yëg nga ne njëg yi njëg yi nga xamante ni moom la nit ñi soxla yokk na loolu mooy la première question la deuxième question c'est par rapport ak euh, déclaration bi président def keroog par rapport ak accès au logement mu ne am na loi buñ ci joloon waaye gis na ay limites objectives am beneen question boobu aussi sur la question du logement notamment Médina bi nga xamante ni bokk na ci zone boo xamante ni c'est très convoité par ñi nga xamante ni moom mooy euh, le secteur euh, immobilier privé ñaari question yooyu ndax mën nga ci répondre globalement sur la question du front social waaw <coughs> jërëjëf euh, Pape Djibril maa ngi lay ziar bu baax baax li ma ciy tontu mooy yaa ngi wax léegi dund bu cher beeg yooyu wante gis naa ni at yële weesu président defoon na ci ay jéego mu wàccoon mais ñu ngi nemmeeku ni xëy na jamono ji mu ngi am mu ngi yéegaat donc ñuy ñaan yàlla rek euh, mu gaaw wàccaat ndaxte askan bi moom lu ci waay jàpp rek mu gën dégg naa fan yi nag euh, lu bëree bari nag lu waay wax ñu teg ko ci guerre bi am fële wante daal euh, comme que bëriwuma xam-xam ci loolu parce que fekkewuma bi ñu koy def li may ñaan comme sénégalais yëpp mooy ñaan yàlla lu ñuy jiite réew mi gën a jàppale askan bi mu gën problème mu bi nga wax tamit président dégg naa ko mbokk keroog wax na akulaay taalaam tamit parce que nee na jéem na ci ay jéego mais xam na ni metti na te doxul parce que ki nga xam ni moo jënd béton jënd si maam ak na ko jëndee ak prêt bancaire am ak namu mu ko luyee jéem na ci ay pexe wante ñooñ tamit dañu am engagement yu ñu jël war koo respecté kon lam ca mënoon yëpp def na ko ci daal la ci des nag teg nañ ko ci. loxo yàlla xëy na bala muy yàgg yàlla suturaal ñu ba lépp mën a wàcc. monsieur le bëggoon naa ñu taxaw foofu maa ngi lay nuyu laata ñuy dem est-ce que loolu kàddu euh, kàddu njiitu réew la war a doon.